أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñaanal suñu yonantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci téere kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci ñaar fukkeelu bunt ak juróom ñett muy maa jaa fi tanjim jëloon nañ tomb bu njëkk bi ci kàttanu yàlla ak ndimbalam tey ñuy jël ñaareelu bunt bunt bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ni mimma axaafu ala ummati at tasdiqu bin nujum wa takzibu bil qadr wa xayfati l aimma rawahu abdu ibnu xumayd ki yàlla yónni woon ci jaam ñi nee na bokk na ci li ma yi mooy tuloo xeet bi li ma ragal ci ñoom mooy dëggal bidéew yi ak di weddi ndogalul yàlla ak jéngu njiit yi yonent bi nee na ñett yi lu ma tiit ci xeet wi la bi ci njëkk mooy dëggal bidéew lu muy tekki mooy ñàkk a pas-pas bu wér saa yoo duggee ci dëggal ay bidéew walla yu demee noonu lum lay dugal mooy takzib il qadr mooy da ngay weddi ndogal yàlla ndogal dootul am comme ni mu amee tey ci jamono xam ngeen ndogal amatul lu xew rek am na ku ko xewal lu tax nga dem fa lu tax nga wax ak moom lu tax nga lekk lekkam xoolal demoon nañ fi jamono kenn du nuyoo nuyoo même da ngay gis ci examen yi wala ci nàngam kenn du nuyoo lu tax ndax dañ lay gëmloo ne am na lu ñu la jox nga lekk wala loo takk wala loo naan wala loo raxasoo soo nuyu nit ñi da ngay perte li nga waroon am mu dem ci ñoom yooyu la yonent bi di moytandikuloo nit ñi jullit day gëm dogal dafa bokk ci sunu ngëm mooy al imaanu bi qadri xayrihi wa sharrihi loolu dafa bokk sunu ngëm mooy gëm dogal su neexee su naqaree ndogal ñaar la benn ndogal bi dal ci yow muy mu nekk lu neex wala mu nekk safaan ñaar yooyu nag bu ci mun a am yow lan moo war a nekk sa taxawaay mooy nga gëm ko yonent bi alayhi salaatu salaam dafa laaj Umar amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen Umar ne ko naam koy gëm nañ mu ne fa ma alaamati imaanikum yaa Umar liy wane ne yéen gëm ngeen Umar ne ko narda bil qada wa nashkuru fi raxa wa nasbiru ala al bala narda bil qada lu yàlla dogal sunu kaw ñun nangu nanu ko noonu la jullit di mel jullit day gëm ndogalal yàlla lu yàlla indi sa kaw neex na naqari na sedd na tàng na guddi na bëccëg na lu mën a ñëw ci sa kaw nangul ndogalal yàlla baatu law sax dañ koy tere jullit law law ci suma xam naa soo gisee lii am dama deful nangam déedéet soo gisee lii am dama waxul nangam soo gisee lii am dama demul place sàngam wala waxuma ak diw wala wala loolu dañ koy tere ab jullit ab jullit moom qul lan yusibuna illa ma kataba Allah li dal ci sa kaw rek mooy li yàlla wax mooy dal sa kaw waaw yonent bi doon na jàngal Abdullahi ibnu Abbas ne ko bu xeet bi yëpp àndoon bëgg laa dimbali ci mbir moo xam ne yàlla nee na doo ci jot yëgal ne doo ci jot su àdduna bi yëpp àndoon bëgg laa xañ lu la yàlla jox kenn mënu ci dara gis nga pour ibnu Abbas xam da ko ne qad jaffa as suxuf këyit gi yàlla doon bindee fendi na wa rufi alqalam yëkkati nañ biig bi jeex na këyit gi yàlla doon bindee mu ne këyit gi fend ne biig bi doon bind yàlla yëkkati na ko dootu ko tegaat kon li am rek mooy am ila an yarisa allahu ardama man aleyha ñetteel mooy jëngu njiit njiit yu jeng tey loolu lañu yàlla defal innama axaafu aleykum aimmatil mudillin li ma ragal ci yéen mooy njiit yu jeng njiit yu réer yonent waxoon na fa iza waqa sayf lam yurfa ila yawm alqiyama su jaas ji ta taxawee di dal seen kaw maanaam bu arme di xasee takk nee na safara si dootul fay ba yàlla muur jant weeg weer wi loolu ay mbir la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko ragaloon ci ñun beneen xadis bi mooy xadisu anas xadis boobu marfuu la mu ne axaafu ala ummati baadi xislatayni takziban bil qadr wa imanan bin nujum rawahu abu yaala wa bnu adi walxatib fi kitaabi nujum yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ma ragal ci sama xeet sama ginnaaw axaafu ala ummati baadi allahu akbar li ma ragal ci sama xeet sama ginnaaw man yonent kon mbir mi yonent bi ragal kañ lay am ginnaawam mooy kañ bi mu génne àdduna ba jamono bi soppeeku ay mbir dina xew ginnaawam moom yonent bi nee na mbir yooyu de ñaari mbir la xis la tey ni ñaari mbir la ñaari melokaan la ñu ne bi ci njëkk mu ne takziban bil qadri weddi dogal dogal ci lañ toll kañ la ko yonent bi waxoon sama ginnaaw kon am na mooy weddi ndogal ndogal amatul léegi ndogal amatul bu waa ji amee bànneex sax gañe fenn wala réussir nga dégg ñu ne ndey ma ko liggéey su kii yaayam li mu daj ci kër gi foog mu am lii mu nga wala kii ni mu góorgóorloo wala ni mu sawaree wala ni mu wala ni mu loolu mooy may léegi démb dégg naa ci bu ñu ma envoyé sama page Facebook benn woykat bu jigéen ay drapage yu mu def ñu daal def xaw ma les drapages de daal di wax turam ñu wax turu woykat bu jigéen la mu daal di cliquer dugg mu jàkkaarloog sëriñ bi naan ko wallaay yaay yàlla yaa ma defar ñi ma àndaloon ñëpp màgget nañ waaye ba ma ñëwee cëw gis nga maa ngi nii di jagar jagar bi ñi di tàccu mu naan ko wallaay yaay yàlla yaay yàlla diw mooy yàlla mu ngi sama Facebook diw mooy yàlla ba ma dafa leen ndox ma naan maa ngi nii xool leen ma gars yi di tàccu seenam day daw loolu mooy musiba bu ñuy dal tey su nit amee teraanga au lieu mu xam ne yàlla la du ko adressé yàlla mais da koy adressé mbindeef kenn gëmatul dogal yàlla defatul dara lu dul lu bon lu bon rek ngay dégg nit ñu ne lii de ndogal yàlla la lu bon ay lu baax sëñ be ko ñaanal ponkal ngand la kër ci waaye bu dee lu bon nag ñu ñëw ñu ñëw di la waar xam nga lii yàllaa ko dogal mu moo ci dara waaw ya kon léegi yàlla moom lu bon rek lay def amul lu baax loolu ab jullit du ko nangu yàlla dogalu ko benn borom moo xam ne na isa yàlla nee na man jaa abil xasanati mu ne falalu aswab saaliha ku def lu baax yàlla mu ne ma fay la fukk mu ne ko man jaa bi sayyati nag fala yujza illa mislaha gars yi di ko firi mu ne am na ñu naan yàlla nee na du la fay lu dul benn bon déet mu ne déedéet déedéet bul wax yàlla du la fay lu dul benn bon mu ne yàlla dalay bàyyee bu bon bi nga def parce que moom amul lu bon lu mu la jox ba defee lu bon yàlla du nekk du uti lu bon di la fay parce que yàlla amul lu bon mais lu bon lii nga def moom la lay bàyyeel sa benn boobu la lay bàyyeel parce que amul lu mu ko multiplier mais bu dee lu baax loolu moom ay magasin la ci yoon walillahi xazainu samawati wal ard moo tax mu daal lay fay yu baax ba benn bu baax wal xasanatu bi asri am saaliha fukk la la yàlla di fay waaye bu dee benn bu bon mu ne amul lum la jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere ku weddi dogal waaw nit day gëm dogalul yàlla su neexee nga nga nangu su naqaree nga nangu yonent bi dafa yoroon ñaari ñaan sallallahu alayhi wa sallam su neexee mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal yonent bi musta càmbat musta ñaxtu musta musta su neexee rek mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su mettee mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal kon yonent bi day tere ñaari melokaan la yoo xam ne nee na ragal naa ko ci xeet wi sama ginnaaw nag lay am mooy weddi dogal wa imaanan bi nujum ak gëm biddéew yi ñu dem ba gëm biddéew yi tey ay nit daanaka seen dund yëpp loolu la mooy ilmu nujum la ñuy jàng waaw gëm biddéew yi waaw biddéewu diw fàq na diw biddéewam nangam na Sénégal koo dégg ñu ne biddéewam fàq na ça veut dire que ah affaire am baax na am na xaalis wala tukki na wala nommé nañ ko ministre wala nommé nañ ko député wala sénateur ñu ne ah diw ko biddéewam fàq na loolu mooy fàqaloo biddéew loolu bokkul ci pas-pasu jullit mbirim biddéew dañ koo tere ñoo na ci beneen xadis mu ne wal ahadis fi zammi tanjim wa tahzir minhu kasir nee na xadis yi ñëw di jàngale di ŋàññ mbirum biddiw yi ak di ko moytu di ko jaamu yàlla yi nee na bëri na trop trop trop trop moo tax mu ne borom xam-xam bi surtout ki ñu naan Qataada mu ne taallumu manazilil qamar walam yuraxas hub ibnu uyaynata mu ne jàng mbirum weer wi wala biddiw yi waaye jàng ko njàng goo xam ne mbirum njabar nga ciy jël ak di woote xëy bu mooy kumpa loolu moom yolomaluñu kenn pour mu jàng ko mënees naa jàng mbirum weer mënees naa jàng mbirum weer biddiw ndax alquran laaj na gaa yi laaj nañu yonent bi wa yasalunaka anil ahilla alquran moo toon qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj ci weer wi la ñuy jàng di xam calendrier musulman ci la ñuy xam kañ la aj ci la ñuy xam kañ la ñuy woor ci la ñuy xam jigéen buy tënc ci la ñuy xam jigéen buy simmi ci la ñuy xam ba mbaax ci la ñuy xam idda la fasee ci la ñuy xam ah aj yi ci la ñuy xam maanaam ci la ñuy xam mbirum diine mbirum diine yépp yàlla ko def ci weeru islaam waaye nekkul ci calendrier chrétien nekku ci nekkul ci calendrier yi yahuudi ak nasaraan yi ñun suñu jaamu yakkaay yàlla yépp yàlla ko def ci weeru qamariya nekkul ci weeru samsiya te xoolal tey ñun ni ñu toppatoo weer weer toppatoo ñu ko weer wi tey soo am na ci jullit yoo xam boo leen laajoon teele la ci weeru lan nga dégg ñu naan mais boo ne woon teele la ci calendrier tubaab ñu ne la ko tiw ci ban weer ñu ne la ko tiw ci ban at ñu ne la ko tiw voilà ñe seconde yi sax ñu jox la ñu ngi ne waaye boo ne calendrier islam tey la lan du ma wax du ma wax ñu bëri ñu tontu le mais dina niiw te pourtant foofu la ñu war a toppatoo gis nga ñàkk toppatoo weeru islam bi moo tax problème am ci alamu islam bi ñàkk ko toppatoo parce que nit ñi yittewuñ ko tubaab yi fexe nañu ba détourné ñu côté boobu xamuñ ci atum l'islam dara dara weeri l'islam yi yiñ ci xam rek mooy yi am lekk lu mel ne tabaski lu mel ne ay korité lu mel ne ay jam xarit yi am lekk yi neex yi te gis nga yépp dafa am dafa am jaamu yàlla wi néew na weer woo xam ne amul jaamu yàlla bu ci yonent bi digle wala mu ko daan def moom ci boppam wala yàlla digle ko kon loolu moo tax mbokk yi jàng ko ci wàllu xam jaamu yàlla loolu dañ la ko nangul amaa di jàng nag mbirum weer mbirum biddéew mbirum mbirum mbirum mbirum ngir njabar daan diw biddéewum guddi lay dem ak bàyyi leen ba guddi ngeen ko ko yooyu yooyu moom islam daf ko tere ndax laa yaalamul xayb man fi samawati wal ard illa allah wa ma yasuruun ayaana yubasun yàlla nee na kenn xamul kumpa ci asamaan ak suuf ku fi dee sax ba ñu suul ko ci suuf si yàlla nee na xamul kañ la dekki kon nag mbir la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dama ko ragaloon ci xeet wi borom xam-xam yi tere ñu ko mu ne wa ruxisa fi taalimi manazil ahmad imam ahmad moom yolomal na pour nit mën a jàng ci mbirum biddiiw yi ak ishaq qaala alxataabi أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به من جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه su fekkee xam-xam la bi nga xam ne dañuy jàng mbirum biddiw yi pour xam xibla bi fan la nekk parce que da ngay jàng te ñu ne la biddiw yi sàngam yi yi nekk jëmukaay yi sàngam voilà yooyu fu ñu nekk bi foofu la xibla bi nekk ndax yooyu ñi ñi jàng yépp xam nañ ne yooyu moom biddéew yooyu côté yooyu la leen yàlla orienté ñii jàng ñu ne biddéew yi sow la ñuy nekk ñii jàng ñu ne la yi càmmoñ la ñuy nekk muy gànnaar yi muy gànnaar maanaam jàng loolu pour orientation ci wàllu xibla wala jàng loolu comme ñiy dem ci kaw asamaan yi di jàng bidéew yi vitesse yi muy daw bidéew yi lan lañ leen defaree bidéew yi nag loolu du xam-xamu njabar loolu kenn terewu ko bal loolu lu ñu santaale la nit ñi sax xam ko parce que daf leen di yokk ci wàllu ngëm yàlla daf leen di yokk wàllu ragal yàlla waaye da leen di yokk wàllu xam-xamu àdduna amma xam-xam bi nga xam ne dañ koo tere gis nga wa zalika anna maarifatu rasdu zil laysa shay'an bi aksa min anna zill ma daama mutanaqisa fa samsu baadu sodaai nahwa wasati sama min al ufuq alsharqi dañ am jàng mbirum ker gi ker gi la moo tax muy dem di ñëwaat ker gi lu tax muy yëngu lu tax ker bu ñu xëyee ker nekk sow su bëccëgee ker nekk penk ci jant bi la jant bi mooy dem di ñëwaat ah waaye ker gi deful dara de moom nekkul ne mooy yóbbu boppam waaye bal jant bi mooy dem bu jant bi demee ah ker gi daal di déplacé wu su jant bi nekkee ci kanam nekk penku ker gi day nekk bu jant bi ñëwaatee sow xam nga am na benn borom xam-xam ci borom xam-xam nasaraani bu ñu rey bu tudd Galilée la moo tax ñu rey ko dafa ne suuf si day wundeelu gaa yi na ko yow di la yere yow da ngaa rem suuf si yàlla da ko dàllal fekk suuf si mooy wër am maa jant bi am maa jant bi moom moom moom ci benn place da nekk moom boppam boppam lay wër wasam su tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim jant bi dafa fixé wu étoile yi ñoo koy wër moom ci boppam rek mooy tourné moom amma yeneen yi ñooy wër ñooy déplacé wu yi di jaar madaaru sirtaan yi di jaar madaaru jati ñoo koy wër bu nekk en place bu ko yàlla jaarale du fekk yeneen yi bu ko ci génn rek am catastrophe bu am ay ligne la ñuy daw kon jàng yooyu loolu duggul ci xam-xamu bokkaale loolu duggul ci xërëm li dugg ci xërëm na xam ngeen ko mooy yi am fii ñun ñëpp ñu koy teg bët ñun ñëpp ñu gis ko waaw nga gis léegi soo bëggoon xërëm nit nga dem ci benn waaye mu ne la xaaral ma jàpp biddéewam du dem kii biddéewam dootul fay fa ci bare na fay na dama koy fay dem xërëm la booye laak ay jinne bu yeboo ñu xam ne xërëm am na de yàlla waxul xërëm amul de wa ma hum bi daarina bihi bi hat illa bi iznillah munuñu caa munuñu la cee lor na lu mu neex yàlla waaye jabar dafa am mooy xërëm benn kese la bu ko weddi nag ne amul yow sa pas-pas wérul ci lislaam waaye bañ dañ la ne bu ko def parce que dafa xaraam bul ko liggéey bul ko def mécc bul ko def nit parce que baaxul waaye am na ah bu ko jëfandikoo xam-xam bu ñu la tere la parce que mbirum seytaane la loolu lañ la tere amaa na nga bu ko weddi yow jullit naan amul loolu moom du lislaam parce que alxuraan wax na ko wama kafara suleyman walakin shayatina kafaru yuallimuna nasa sihr yàlla nee na suleyman weddiwul waaye jinne yi ñoo weddi ñoo doon jàngal nit ñi ak njabar kon loolu moo lay wan ne njabar kufru la am na moo na wan ne buxaaba ak xërëm ku ko dugg rek ku ci dugg rek yéeféer nga parce que yàlla nee na wama kafara suleyman suleyman weddiwul waaye seytaane yi ñoo weddi di jàngal nit ñi njabar ak xërëm waaw te njabar ak xërëm sobe rek moo koy def sobe ku set mënu ko def ku set jinne yi dañ lay yow koo gis mu nekk njabarkat bul xool yére yi mu sol ni mu rafetee bul xool yaramam bi ni mu setee bul xool oto bi mu yor ni mu rafetee bul xool kër gi ni mu dëkkee non non loolu mën naa set waaye moom ci boppam day dunde sobe day saw te du wisu wala muy am janaaba te du sangu di dugg ak moom jàkk wala di jël alxuraan di ko bindee mbërëk wala di dugge kaamil ci biir duus yu sobe lay def sobe kese kese kese kese billahi wallahi wa taala yu sobe kese la jabarkat di dund léegi nag lu mel noonu yow boo ko buggee dund boo ko buggee def da ngay weddi yàlla moo tax yàlla tabaraka wa taala tere ñu ko mu bañ a nekk ci suñu pas-pas pour ñu bañ mooy te nekk ko mbokk yi ñëw na ci beneen xadis boo xam ne abu musa moo ko nettali nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na salaasun salaasatun laa yadxuluna aljanna mudminu lxamr wa qaatiu rahm wa musaddiqun bisahar yonent bi nee na ñett ñi duñ dugg aljanna ku ci njëkk mu ne naankatu sàngara ñaareel mu ne kuy dog mbokk ñetteel mu ne ku dëggal njabar yonent bi nee na ñett ñi laa yadxuluuna aljanna waaw mbokk yi ku yonent bi ne doo dugg aljanna lu ngeen xalaat ci moom ah du dugg ku ci njëkk yonent bi nee na mudminul xamr naan katu sàngara yonent bi neen du dugg aljanna ñaata Sénégal la ñu ngeen xam ñuy naan sàngara sàngara ndax yàlla araamoon ko ci alquran innama alxamr wal maysir wal ansar wal azlam rijsun yonent bi nee na mudminul xamr ka abidu wasan naan katu sàngara moom jaamukatu xërëm ñooyam yonent bi nee na ñetti nit duñ dugg aljana ci beneen riwaaya salaasun laa yadxuluuna aljanna mudminul xamr wa aqul li waliday wa dayus naan katu sàngara dugg aljana ku dëngee ñaari muy juróom dugg aljana dayus mooy koo xam ne sa waa kër bu ñuy def lu bon nga ne ay xale lañ buñ màggee mu dañ yonent bi nee na yéen ñett ñi du ngeen dugg aljana yonent bi nee na alxamru ummul xabaais sàngara mooy yaayu ñaawteef yi moo tax benn borom xam mu ne boo amee boo naanee sàngara am nga juróom-ñaari jikko rabu àll am nga jikko xaj am nga jikko mbaam am nga jikko gaynde am nga jikko golo am nga jikko ginaar am nga jikko xar am nga jikko gis na benn daal ah déedéet wax naa ngir béy wax naa ginaar lan mooy jikko gaynde yi da ngay am fit ñeme lan mooy jikko xaj bi ñeme ngaa ñëw ci jàkk saw ci xaj day daw ba jàkk rek yëkkati tànk lan mooy jikko ginaar gi place lu mu set set set ku nekk boo amoon gan ngalal si yaare yi rek ginaar gi day daw naan kat sàngara dama naa ñëw ci jàkk dem ba fi ilimaan taxaw mu dem fa àll ba xam nga jikko xar luy jikko xar bi ñeme ngaa séeg sa ndey parce que nekkatoo fi lan mooy jikko golo bi foo jaar ñu day xub koñ boo jaar coow li topp la bëccëg nga dem ba fële daal di delluwaat nii rek doo egg sa kër mu bu leen lii daan toogee ba sa bunt kër nga dàq leen ñu demaat ñu toppaat la yan jikko moo ci des ah jikko mbaam jikko mbaam bi mooy dañ lay dóor suba suba doo dem doo ko yëg waaw xanaa déggu leen ñu ne naankat sàngara bi dafa gis jinni jinni ne da koy jommal est-ce que ku jommi dina ku màndi dina jommi ku màndi du jommi lu tax parce que xel mi moo fi nekkut amul xel moo tax lépp luy tàqale jullit ak xelam islam daf koo tere kullu muskirin haram lépp luy màndiloo rek haram la yonent bi ne kullu muskirin xamrun wa kullu xamrun haram lépp luy màndiloo sàngara la bépp sàngara haram na lépp la wax nag lépp loo xam ne bu ko nit ñamee rek màndi kon sàngara mbokk yi dafa haram yonent bi moo ko wax sallallahu ak dog mbokk wa qaati'u rahim dog mbokk dog mbokk mbokk bi ko yàlla di wàcc dafa jooy ak mbokk bi ko yàlla di wàcc àdduna dafa jooy yàlla ne ko looy jooy mu ne dama bañ nga wàcce ma ñu dog ma yàlla na ko demal ku la jokk ma jokk ko ku la dagg ma dagg ko yonent bi ne sil man qataaka wa ahsin ila man asa ilayk wa qulil haqq wala wala nafsi jokkul ku la dogu nit day jokk mbokk tey ñu néew ci ñun te xoolal waxuma jokk mbokk tey yàlla moyen yu néew yi mu utal jokk mbokk da nga gis ku toog fukki at da mu saay mbokkam te pourtant mun naa jël léegi-léegi crédit bu cinq cent orange daal di dugg ligne journée bi yëpp fu nekk lay woote ku nekk dina la wax loolu jokk mbokk la wala 500 francs nga dugg lii woo nga waa Fuuta woo nga waa Kaolack fu nekk woote nga ko boo defee 1000 francs journée bi ñaata la ñaata nit nga mun a woo ci say mbokk nga xoolal tiyaaba bu rëy boobu te woote bi yow yaa koy xeeb waaye gis ne ki nga woo rek ne ko dama la namoon rek maa ngi lay ziyaare ah ñu gëj a déggante soo raccroché beneen weer nga defaat ko beneen weer nga defaat ko lu muy wax ci yow waaye kii ku bëgg mbokk la waaye kii daal ku baax a ngi nii waaye waaye ñu ñëw ci ñun ñoo koy moo tax yonent bi ne alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu lu baax dafa bëri mais dafa néew ku koy def te jokk mbokk day guddal sax fan ku bokk ci lay guddal fan xoolal mbokk yi ngay jokk yëpp ñu lay ñaanal ñaata lañ est-ce que tey bu fekkee amatuñu jot tànk yi mënatul dem biir yi sorante na dëkkuwaay yi sorante na affaire bi xat na soxla yu bëri na waaye téléphone yaa ngi fi numéro yaa ngi fi SMS yaa ngi fi sax kon nañuy jokk mbokk dafa bokk ci màndarga yowmal xiyaam mooy topp mbokk nit ñi dem ko dootuñu fonkati mbokk dangay wax sax léegi ñu ah jabaru mbokk léegi jabari mbokk du ngeen dégg jabari mbokk sax di léegi nii yow mbaa doo takk sa mbokk nga dégg na yàlla tere ku bàyyi say mbokk nag gis ku jàpp ay mbokkam boo bàyyi say mbokk gis ku jàpp téeméeri mbokkam waaw waaw nga dem ci mbokki jàmbur yi waaw naka la nit di waxee mbaa takkoo sa bopp loolu ko nit di waxee ragal sëy bi su kiiwee comme mbokk mi tas.
mais sëy bi dafa warul kii pourquoi pas ñu ñu ne bul takk sa mbokk ndax sëy bi bu kiiwee bu soo waxoon damay takk sama mbokk ndax sëy bu dëgër mbokk yi gën a dëgër kenn warul jël nit négatif di ko teg ci kaw positif pourquoi yow mi naan bu ma takkee mbokk bu ma takkee sama mbokk mbokk gi yàqu naroo jàmm sa yéene la la yàlla di fay naroo jàmm naa takk sama mbokk ndax mbokk mi dëgër ah loolu chaque jour looy xalaat mooy mbokk gi dafa war a dëgër mbokk gi warul yàqu mais soo amee beneen beneen xalaat bi du baax léegi loo gis kenn dootul daw seeni mbokk kenn du fat mbokkam da ngay dégg sax ñu ne doomu jiit du doom koo takk yaayam du du sa doom yooyu du wax ju baax ah kenn du fat mbokk nga fat léegi jaamur moo gën nga fat sa mbokk loolu mooy waxi lan nooy bàyyee sa mbokk nga koy fat nga dem fat ay jaamur te kii nga bokkam da ngay gis koo xam ne aussi au lieu mu dimbali ay mbokkam sàmba àllaar la ay mbokkam xamuluñ ko dara da ngay gis ci dëkk bi ñoo xam ne naan diw ak diw ñoo bokk nday baay kii amul lu mu lekk kii di noos kii ay nit topp ko mu bàyyi ay mbokkam kay parce que dafa bëgg mbokk yi nañ ko topp te nag gis ngeen nit attention de am ñoo xam ne duñ tàllal sal na ko seen mbokk de léegi nag nit ñi looloo tax rëy googu seen mbokk yi di rëy duñ la jaamu duñ la topp di la tàgg da nga naan ah comme duñ ma tàgg duñ ñëw di ma ñaan man du ma leen mayoon da ngaa bëgg ñu ñëw mel na ñeneen ñi.
am na kenn koo xam ne wane nañ ko barki démb ba télé ci kii wu entreprise yi ñu ngi ko jox prix te maa ngi waaj a génnee ak
location waaw maa ngi koy nar a expliqué.
yaa luwe la kam gis ngeen lii la dëgg la ci dégg nga loolu te moom mu ngi entreprise yoo xam ne mi ngi liggéeyloo ay nit mi ngi alal bu dul jeex bañ koy jox ay cadeau ñu ngi waaj a génnee rakkam location allahu akbar xoolal lii ban diine la tey rakkam boobu boo moytul dem na fa benn yoon ñaari yoon ñett te li gën a garaaw bi ci suñuy mbokk da ngay am problème ordonnance su 500 paracetamol ñu ne la non xam nga temps yi société bi temps yi dëkk bi temps yi réew bi nga dee nag kaat kaat yi raw gis nga kooku tey bu deewoon la ilaha illallah di nga fa gis nag yoo xam ne façon nag yooyu mosoo leen gis ci àdduna ndax duñu ngandee billaahi ngànd nag yoo xam ne benn pooj bi rek pooj bi benn bi daanaka fees na ñetti cin yooyu la ñuy dem indi nag léegi ñett waaw naan ay borom yi mbokk la te wóor na leen wóor yàlla ne waajooju buñ ko jëndaloon benn xar rek mu rey ko une semaine mu def ko ci frigo bi mu ciy supp wallaahi day tane day tane waaye dañuy bàyyi ba mu dee ñu ñëw ñi deux cent mille ñi cinq cent mille ñi cinq cent mille ñi un million te loolu yëpp joxewuñ ko ngir yàlla ñoo ko joxe dañ koy lekkaat bala ñuy dem yow yow joxe nga sa dix mille ñu ne joxe naa waaw man kay fii laay toog damay toog fii ñetti fan dix mille bi di nga ndékki añ reer waaw dix mille yi balaa ngay dem di nga ko calculer kay bis bu nekk nga def ko ma mille franc wala deux mille nga añ añ bu neex boo xam ne daawa ko añ sa kër nga reer cere boo xam ne amul sa kër nga xëy ndékki boo xam ne amul sa kër dañuy sax commande nag am ngeen café am ngeen meew am ngeen beurre kii naan fromage kii naan man de mayonnaise kii ne omelette kii naan damaa jabet nañ wutal sama lekk booba te li nga nekkee sa kër non kon nag yàlla dimbali quoi Sénégal waaw waaw gis nga teew ñaata nga joxe jaale bi nga ñëwee jaale mille francs ngay indi diggante Dakar ak mu kii foofu nu mu tudd Bakel pass bi ñaata la nga ni waaw dañ naan ki gaañ ñu dee fi góor na sama laay yàpp kon tey dañ leen topp sama laay allah ah ñi ngi koy defal ñu ne kii gaañu ki luy lekk bu mu gënoon na bugg nangam kon tey dañ leen topp loolu ñu koy
non ñun ñun Sénégal ñoo mun a foofu man tout récemment sama biñu ba moom ak ki fay la am na xam ne waru ma ci wax waaw bi ñu defee ci nii dañuy ñëw imposé ne am na yenn ci yoo xam ne mbaxalu yàpp lay doon parce que il paraît ne moo xew ci géejawaay dañ ne moo xew géejawaay ñett ci yoo xam ne mbaxal lañ ko def ñëpp ñu def ko mbaxal ñu def ko mbaxal mbaxal si yàlla leneen loolu dafa xew leneen dafa xew ci géejawaay ndeysaan dégg ngeen leneen dafa xew léegi yow ngay dafay jaamu yàlla ngay dafa xew léegi yàlla la wala lu xew
xam nga dañ koy jaay jaay waaw kay dañ koy jaay effectivement Mbaxal mi?
waaw dañ koy jaay gis nañoo koy jaay ay maanaam dañ koy jaay ci faatu ay sëtam yaay ma mbaxal mi place su tuuti ñu ne ko deux mille place su tuuti deux mille nag nekkuma Sénégal rek léegi nag ñoom moom moom xaalis yi dañuy liggéey moom xaalis yi
lii de dañuy jaay oh yow yàlla na yàlla jubal ba ak oh suñu borom wala ñu waay parce que am na ñu jógoo yeneen côté bi ñu dikkee bi ñu dikkee ñoom loolu xewagul foofu mais bi ñu dikkee dañ ne loolu dafa xew géejawaay géejawaay moom la leen loolu dafa xew suñu borom léegi mi ngi nii naka la ñu amee diini naka la ñu amee diini naka la ñu nekk ay jullit dafa xew lii mooy jamono ay mbokkam lii lañ bëgg waa ji lii la bëggoon parce que démb gis naa ci ci ci ci YouTube bi benn ku dee nit ñu jël di tëgg di fecc yore kees gi di fecc ak kees gi ñu ne moom moo ne woon bu deewee nañu fecc gars yi di fecc yore kees gi di fecc fecc yi métti man allah yore néew di fecc ah xaw ma julli da xaw ma lu mu doon lu seetaan naa ko ci YouTube bi ñu fecc fecc yi métti ñu ne woykat la woon ku ji ku jigéen la ñu téye kees gi ci kaw di fecc ak moom ñépp di tëb ñu ne moom moo ko waxoon bu dee na ngeen fecc loolu man gis naa ko Nigéria gis nga maanaam Nigéria moom ak sax suma mbokk séeréer yi ci boori ay bari boor ñi ñoom dañu mais ñee ñoom Nigéria moom dañuy fecc parce que xoolal ni moom ñun julli bi ñu xalaatee alaaxira ne noona la ñoom xalaate wuñu si ndax maanaam ay jekkeeg ay malaaka bi ñëw ak Hmm.
di laaj yoon ñoom xalaate wuñu noonu la noonu ñu nga duñ jee rek jeex na jeex na amatul leneen amatul leneen ndeysaan ñun nag bokkuñ ci loolu kon bokk julli yi ñett yi yonent bi nee na ku koy def doo dugg aljanna kuy naan sàngara kuy dog mbokk ñetteel bi mooy wa musaddiqun bi saxari bi sixri wa musaddiqun bi sixri rawahu ahmad wa ibnu xibban fi saxiixi hadis bi yonent bi ne kuy naan sàngara dugg aljanna kuy dog mbokk dugg aljanna ak kuy dëggal njabar waaw njabar am na da ngeen koy weddi waaye dëgg la fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi waaw ku ko gë- ku koy weddi fii ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf yooyu la ñu lay wax te yonent bi dafa tere njabar ku ko dëggal yonent bi nee na yow doo dugg aljana waaw jullit du gëm njabar ci dundam yépp du ko jéem a def du ko jéem a jàng du ko jéem a jël di ko jubal ci mbokkum jullitam xam ngeen loolu tey daanaka ay nit a ngi tey ci dëkk yàqu nga gis naan wujju yaayam wala dégg xale bi wujju yaayam rey lekk ba di ko sa dëgg ñun ci police bi buñ ko jàllale woon ci police bi xoolal loolu ñun ci police géejawaay bi buñ ko jàllale woon lekk la ko xoje ba xale bi sedd loolu buñ jëf ñii dañuy xërëm seeni doomu wujj ñii di xërëm seeni jëkkër ñii di xërëm seeni jabar ñii di xërëm seeni patron ñii di xërëm seeni taalibi xoolal xoolal nit ñi léegi am na yu ngeen di yu ngeen di gis nit ñi di def di ngeen yaakaar ne seen sagol dañ leen a xërëm wallahi lazim dañ leen a xërëm xërëm yu métti loolu moo tax nit ñi di wommatu mel ne ay xaj dégg ngeen fi seede yi bu ñu lekk loo yuuru xaj ak yuuru nit waxuma la toppaate waaye yow dootoo jëriñ sa bopp sax benn waay buy garde benn kër patron bu mag ci biir Sénégal moo ma ne benn bis patron bi dafa dem France yabal ji dem jënd ginaar ñëw ba ci digg kër gi ci jardin bi mu gas ginaar gi ba mu fóot sëriñ bi ñëw ñu sang ginaar gi ñu suul ginaar gi muy dund ba mu am une semaine waa ji di ñibbi si téléphone ñu génne ginaar gi muy dund ñu rendi ko suqi ko ba mu sax ginaar gi togg ko waa ji reere wala ginaar bu ñu suul une semaine deewu xool loolu nu mu grave ñu rendi ko jox la ko nga lekk ba suur après yow nga def na bu ñu la nee noppi doo noppi bu ñu la nee jaaral nii doo fi jaar bu ñu la nee tëddal doo tëdd bu ñu la nee indi li nga yor doo joxe buy leen ma doo joxe am mu ngoog moo tax ku yebu di ngaan naa yow ñaan de balaa ngay lekk nga jàng ñaan yi balaa ngay naan nga jàng ñaan yi balaa ngay sangu nga jàng ñaan yi balaa ngay tëdd nga jàng ñaan yi waaw yàlla rek moo lay aar soo defee tawakkul alallah wallahi buñ la joxoon juróom-ñaar fukk ginaar yi boo lekkee dara duñ la mun a tus te da ngay lekk ba suur mais boo wan melee ne man di dox dox danañ la dugal foo xam ne di nga xëy fii ñu naan kii du moom fekk yow la parce que dañ laa jekku waaw ku yeboon ak jóg sa bopp yonent bi indi na ay ñaan dara gën cee rey ayatul kursi dara gën cee rey qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi naas dara gën cee rey a'udhu bi kalimaati llahi tamma dara gënu cee rey xëy suba lekk juróom-ñaari gendarme dara gënu cee rey tawakkul ala allah tàndarma bu xëyee rek la yàlla war sa nga ne tàndarma lekkal ci muslul yàlla waaw defal sa askar sabaax ak sa askar masa fooy dem yoral jàpp dara gën ci réew loolu day dégg gàllaaj gàllaaj gàllaaj bi gën a rëy mooy gàllaaj bi mooy yonent bi lim doon def nga def yonent bi ku ëppul yi noonu kan moo ëppul yonent bi noonu njabar nañ ko lu ne def nañ ko ko mais parce que yàlla daan na parce que yàllaa ko protégé yàllaa ko jox ay ñaanam ñaan yooyu nag la ñu yonent bi jox kon ku ko jàng ni yàlla doon aare yonent bi yàlla aaroon na Abu Hurayra dafa xëy marché ñu fekk ko marché bi ne ko dëkk baa ngay tàkk mu ne sama kër lu ci bokk de ñu ne ko lan mu ne géej naa ci yàlla sama kër lu ci bokk ñu ne ko lu tax mu ne bi ma xëyee wax naa ñaan bi yonent bi waxoon na ku ñaan li lu bon du la dal saa ko dëkk bi tàkk ba yegg ci këram fay waxit Abdou Salam Bali benn soxna jinne daf ko dugg ñu indi ko ci moom mu koy mocc mu ne jinne ji bàyyi ko jinne ji ma ko bàyyi mu ne ko wóor na borom asamaan di ko bàyyi jinne bi ne ko boo ko bàyyee ci yow laay dugg de yow ci yow laay ñëw di ko tiital mu ne ko sama yoon nekku ci man xaw ma ci mën nga jëm xaw ma ko mën a jëm waaye kii moom di nga ko bàyyi dégg jinne ji jooy mu ne ko loo jooy mu ne damaa xam ne bu ma génnee ci moom it du ma mun a ñëw ci yow ndax yow bi nga xëyee wax nga laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir mu ne ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te lii ku ko wax jinne yi la mun a dara suba gi boo ko waxee timis jinne yi la mun a dara bu guddi yonent bi nee na amana rasul ku ko jàng guddi kafataahu ñii ne kafataahu an qiyaami leeli ñii ne kafataahu an ah ku ko jàng doy na la ci tox dootoo taxaw guddi naa fi la ñii ne musiba bi yëpp doy na la ci doo daal kon nag boo boo fi dindee dara dañ fi teg dara ah trois heures la trois heures bi na voilà suba la activiste bu nekk ñett maanaam bi bi fi yonent bi ñëwee dindi fi dara lan la fi teg dafay di ñaani sunna yi tegal Xaalid ibnu Walid defar nañ poson jox ko doo dégg ñu naan mag ñi naan Xaalid ibnu Walid poson mu gore ñu ne booy naan poson boo ne Xaalid ibnu Walid du ngeen ko dégg xam nga ñoom du ñu xam lu xew dañuy dégg dara am na rek mu ëpp lu ñu ñaan boobu ñu jël turu ki ko defoon doo dégg ñu naan ñaanu xaas mooy Saad ibnu Abi Waqaas la du xaas comme xamuñu nag affaire bi nu mu demee ñu ne xaas ñaanu xaas ñaan Saad ibnu Abi Waqaas noonu ngay dégg Xaalid ibnu Walid ah doomu ñun bu ñu ko nekkee dañuy yalwaan ci jubal waaw dañu doon wax bu leen saraxee ba da ngeen koo lekk da ngeen wax bisimilah xaalis bu wér.
gis nga mu nga Xaalid ibnu Walid lu tax ñuy wax turam ci lekk dañ ko dañu dafa dañu mus a teg poson ne ko du yow da ngay dee réew gëm nga yàlla mu ne waaw ñu ne ko lii poson la boo ko naanee deewoo rek ñu xam ne islaam mooy dëgg mu ne caskaas bu ne bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah daal koy naan waaye waxuñu la nga jël loolu dem naan ko sax Omar Omar dafa am benn jinne bu bu benn jigéen ñu indi ko ci Omar Omar ne xaaral ma ñëw dem jàpp ñëw daan ne aouzu billahi min alcheytan rrajim ci nopp ndaw si bismillahi rrahmani rrahim xaaf rek génne bi salleeru yuuxu rek génn ñu gis ko mu mel ne mus mu ñuul di daw bëtt bëtt di daw ndaw si ne cooc ba jinne bi bàyyi ndaw si ay at xaay Omar génn àdduna jinne bi ñëw leen corox ci ndaw si duggaat ndaw si di caddi caddi ba ñu indi ko ci mbooloo jullit yi benn waaye bu fekkee woon Omar la mu defoon daan ne ah kii du diw ñu ne waaw mu ne ah kii Omar ko fajoon xaar leen ma ñëw xam naa li mu ko fajoon Omar waa ji dem jàpp ñëw aawuzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim xoof seytaan ne ko doo Omar de mu ne xoof ñu ne ko doo Omar de saa yu ne xoof ndaw si mooy wax seytaane mooy wax ci laa mu ñu ndaw si naan ko lasta Omar lasta Omar doo Omar waaw kon gëm-gëm bi la li mu jàng moom la nafsu alquran bi la waaye ci gémmi yi mu génn moo bokkul loolu mooy suñu wax mooy suñu problème kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere ñett yi mooy mudminul xamr xooti u rahm wa musaddiqun bis sihar rawahu ahmad wa ibnu xibbaan loolu moo doon tomb ñëw na ci beneen xadis xaw ma ndax mu ngi sa téere wa man maata wa huwa mudminul xamr saqaahu llahu min nahri lxuluut nahrun yajri min furuji lmaqsud mam lu mu def foofu amoo xadis bi yuzi ahlu nnaari riixu furujahunna la xawla wala quwata illa billah yonent bi nee na képp ku naan sàngara yàlla dina la naanal ci dex gi nga xam ne dañ fay dajale nit ñi seen deret yeeg si siddi yi ak li génn ci seen yaram bu ñuy lakk ak li nga xam ne bu ñuy lakk sexe njaalookat yi li ciy génn ci ndox mu tàng moomu ak deret ji nee na nga xam ne waa safara sax xel gi da leen di bëgg a rey xetu xetu sexe njaalookat yi yonent bi nee na kuy naan sàngar foofu la la yàlla di dugal dan nañ ci yàlla mos مسائل من قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم ban secret hikma xereñ moo nekk ci bind bi yàlla bind biddéew yi loolu lañ koy jàng ci darsu kon biddéew yi gis nga keroog lu tax ñu bind ko mooy lan zinatul li sama wa alamaatun yubtada biha ak ak rujuman li shayatin kon loolu mooy hikma bi ñaareel bi arraddu ala man zaama xayru zalik dars yi dañoo ñëw di tontu ñi nga xam ne am nañu yeneen pas-pas ci biddéew yi ñetteel mooy zikrul xilaaf fi taallumi manazil mooy wuute bi am ci borom xam-xam yi ci jàngalan jàng ilmu nujum ñi daganal ko ñi araamal ko ñi ko daganal wax lu tax ñi ko araamal wax lu tax saa yoo gisee l'islam par exemple muy araamal góor ak jigéen joxante loxo dafa am lu mu bëgg a tëj lan lay tere ñaaw njaaloo soo gisee lislaam tere jaxasoo góor ak jigéen jaxasoo lu muy tëj ñaaw njaaloo rek lay tëj bu leen xoolante bu leen jaxasoo bu leen nuyonte ah njaaloo kese kese bu leen wéet njaaloo kese lañ bëgg a tëj imagine nag xool leen bi ñu ko weddee léegi lu mu jural xataa ci biir kër da ngay gis ñu ne papa ji moo violé doom ji lu ngeen koy dégg mais c'est normal xale bu jigéen boo xam ne am na 18 ans toll nu ko neex di sangu di taraxlaayoo sarbet weer yeeg pooj yeeg lépp di nekk ci biti papa ji toog gëmul yàlla di ko xool tamit ragal leen yàlla dañ ragal yàlla waaw ku mu mun a doon dan la ko tere góorum lëmm sax warul taraxlaayoo ci biir kër góor góor sax warul sol kilot ci biir kër góor say pooj sax da nga ko war a nëbb nit ñi mais da ngay fekk borom kër bu ne lëng ak seen maam biir bi toll na R4 coupane sama gars ñëw mu nga yooyu islam daf koy tere ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yow yéen a ma ko gën a xam lépp loo xam ne dafay indi lu araam islam day tëj bunt bi fële la koy dabijee parce que xam nañ bu ñu ubbee buntu ba rek fu mu jëm foofu la mbir ma jëm loolu moo tax yenn borom xam-xam yi ñu ne comme dem di jàng ji mbirum biddéew yi dafay indi ji ay nit dugg ci di def lu bon kon jàng mbirum biddéew xaram na arabi alwaid fi man saddaqa bi shay'in min as-sihri walaw urifa annahu batil walaw arafa annahu batil ah mooy dig bu yàlla tëkku képp koo xam ne day dëggal njabar donte ne xam na njabar caaxaan la waaye fekk mu ngi koy dëggal yàlla da ko dana ko buggal kon loolu mooy masaayil mooy ñeent ci sama bosan incha allah kon lii mooy dars bi ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu jumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullah